750 millions. oui 750. li ma li ma li ma li ma jaaxal fii mooy pourquoi ñuy xaar ba. coow am. oui ñuy doog a expliquer. c'est ça le problème. parce que réew mu ndaw la ñu yor euh, ñu commencé di en tout cas xam ni am na lu bari lu nekk ci sunu suuf gi. Mhm. loo xam ne mën na changer bu dul ñun sax suñu abonnés yu doom yi mais pourquoi duñ ko teg ci kaw taabal bi. parce que pour man réew mu tuuti mu mel ni Sénégal information yi waruñu xaar ba nit jóg bés benn bouton pour que ñëpp daw pour expliquer aux Sénégalais lii ak lii la dañu toll ci jamono boo xam ne il faut que nit ñi xam li ñu am ak li ñuy mébét pour def ko chaque fois ma ne bic fii nu doole signature yor bic boo xam ne boo signé dina engagé ay ay génération boo koy def da nga war a xool xoolaat mais mm-hmm. dañuy seetlu que ni. am na mbir yu bëri yoo xam ne dafa am solo ci réew mi tey ak ëllëg te duñ ko xam fekk coow juggu si ku nekk génn expliquer nen nii la demee demewul alors que pour man c'est tellement important que dañ ko war a di waxtaanee di ci communiqué pour que sénégalais bu jóg xam ne ki sama réew mi am na 750 millions de de fer buy tëdd fenn di nelaw mm. est-ce que est-ce que loolu du euh, du inciter ki nga xam ne am na baccalauréat tey mu ne nii laay dem jàngi parce que sama réew ëllëg am na orienté nit ñi si li nga xam ne ëllëg moom moo ñu nar a yore muy ñu ngi wax waxi gaz ñu ngi wax waxi pétrole mm-hmm. ñu ngi wax waxi fer ñu ngi wax waxi leneen zircon lu ne ñu koy wax mais yooyu nga xam ne moo nar a changé ëllëgu réew mi mm-hmm. mais pourquoi ñu koy waxtaanee ci suuf oui on est quatorze seize millions seize millions mais bëriwuñu yàlla defal ñu xéewal yooyu mais ñun ñoo moom mbir mi mais pourquoi duñ ñu ci wax nañu ah parce que loolu pour man mooy orienté lu bëri. mooy que ëllëgu Sénégal fii lay toll. ëllëg Sénégal buy toll fii fépp fu nit li nit ki di planifier da koy planifier par rapport ak ëllëgu Sénégal. mais on nous tout il faut une émission de télé pour que le directeur vienne si benn plateau pour wax que ni on a 750 millions di ci glorifier wu alors que c'est une pression. bu existé moo tax information yooyu génn sa pose problème li Charles wax dëgg la dañu nekk Afrique boo xam ne nit yi bu ñu nekkee di di di di jubal élection di jub ci élection mais ñu si gën a bëri balaa ñuy dem président yi balaa ñu dem si ñu si gën a bëri seen tooxi du nay si lañ koy def parce que xamuñu ndax dañuy toog wala dañuy dem mm. mais loolu dañu nekk Afrique dañu am benn maladie mooy dañu di luubal alalu askan bi daf fi bëri garde fou yooyu dañ ko war a ah. teg dañu war a xam lan la ñu am Sonko bu dee dafa génn wax benn affaire il faut que aussi tamit bu dee sénégalais ñoo tax ñu wax ko ñu tax aussi ñu toog argumenter avec des preuves pour que ñun ñu mën a gindi mënuñu sànni si benn affaire rek mm. après ne kenn du communiquer je pense que droit la ñun mm. parce que Sonko même bu nekkul président de la République ñun sénégalais yi ñoo ko moom mm. ñun ñëpp ñoo ko moom ah du waa rek ñun ñëpp ñoo ko moom donc bu dee dara lu information boo xam ne aussi sensible et aussi importante mhm. bu ko waxee war nañ ñu taxaw di ñu expliquer ba ñu mën a gën a comprendre parce que day tax képp koo xam ni parce que benn moment il faut ñu jëndi voilu politicien bi teg na leen mhm. que wax que ni vraiment man Sénégal moom ma ñor donc su ma waxee benn affaire mu mën a expliquer pour que nit ñi gën a imprégné wu gën la ci mën a jàppale mhm. je pense que ça c'est important pour que quand même nit ñi gën a xam problème yooyu mais ëpp solo ba am solo mooy que dañu toll foo xam ne ngir yàlla lépp li nga xam ne moom moo nar a yóbbu suñu suñu réew mi ëllëg wax leen ko sénégalais yi balaa ngeen ciy jublu am na nañu assemblée nationale am na ñu yeneen instance yoo xam ne war ngeen ko mën a waxtaanee ne Sénégal ñu ngi waaj a dugg ci ci lii mm. te lii lii lay wund Sénégal yi yëg ko bu boobaa kenn du ci am surprise mais lépp dañ koy signé foo xam ne duñ ko yëg après bu coow ji